aousubillah min asheytaan irajim bismillahi irahmaaniirahim raditu anil mawla taala lasi rabba fuaadi wa axnaani wa akrim bihi rabba naa jeytuhoo bi yaa nasiiru yaa wali kafaytani iblisa inda jeewali mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw sant yàlla julli ci yonantam bu màgg bi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare leen ñaanal di sàkk yéen ñaan ñoo ngi am mbégte lool ñëwaat fii ci eh, sëriñ Abo Mbàkke moom sëriñ Basiru Moor moom soxna Faty mom Serigne basirou ñu delu ci wat ci téré bi nga xamné ne ci la ñu nekkoon jamono yépp ngeen nu ci dégg ñu delu ci waye bala bobu ñi ngi ñaanal Serigne Touba Cheikh Sidil mukhtar yalla sam ko te wéral ko ba yéeneem ci liggéeyal Serigne mag bi lépp mu défé ko nam ko sowé di ñaanal Serigne Mountakha mbake ibnu Cheikh Mamadou Basir yalla yagal ko fi te wéral ko <coughs> ak mbolam ñi mu bokkal Serigne Touba. comme mun naa ñu dellu siwaat ci téré bi bu ko défé ñu dugg ci ñentelu xaj bi inshallah rabbi ñu bayi len ñu ànd ak serigne abo serigne abo bismillah tafadal mas بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى خديمه السلام عليكم ورحمة الله جريف سنسالو نيجي يامون كونتي في kër bu mag boobu di Maba Jaxu doon sàkkoo ci sëriñ si ñoom ñëpp ñu fekk ko Saalum mu ne ngi doon da doon bañ ceddo yi doxaleen gannaaw fayu ci ñoom gannaaw bi mu jëflante ak ñoom boo defee nag ñu daal di toxu ñoom ñëpp lu ci dul koo xam ne daa am gàntul dem lott na ci mën a dem ku ci kooku rek màng nga sa sa waa kër say doom dem ka nga xam ne daa am gàntul mën a dem toog munta dem waaye ku munta dem it ak njabootam gépp danañ dem mu ne loolu nag bari nag ñoo xam ne sax xam na ñoo xam ne xaw nañ ko ca mere moom Maba Jaxu ci noonu mu doon màngi sëriñ sëpp leen yóbbu man waaye Maba daal lu mën a xew mënees na koo dogal ngant ci lu baree loo xam rek xaw na ci échec ci wàllu politique manes na koo dogal ngant ak it ñàkk gum ñàkk tey ak it ñàkk gumu mu ñàkk diisoo mënees na ko dogal ngànt ndax moom ko xéeroon la ci taxawal l'islam ak ñongal l'islam ak ñoñ l'islam seen jàmm daal ñoroon na ko lool yëkkati drapeau l'islam ak watt ñooñu l'islam ak ñongal leen mu ne loolu lu ko ñoroon la moo tax yeneen ci des yépp ci ay rëcc rëcc mënees na ko ko na dogal ngànt mu ne tamoom itam boole naga ci loolu ma wax ñàkk a diisoo géeg ñàkk a teegi mënees na ko dogal ngànta ndax nekkutoon ko am tabaxor ci wàllu xam-xam mu ne ma ba jaxu xóotul woon ci xam-xam lool di te itam xóotul woon ci wàll xam-xamu feq itam te it politique gu nguur yeeg diine ji taxutoon mu jonjong moom ba xam ko dëgg-dëgg mo mën xew dal ñoo ngi ñaan yalla mu ne mu jéggel ko ay rëcc da fay ko ci l'islam gën ji pay ndax lu mën xew rek yëkkati yëkkati na soro l'islam yëkkati na dëgg ay ta taral na ñoo l'islam itam lo xa def na ci lu baax lo xamne dal man na koo ay yibam ndem amna ay sik non la ko waxe an la tudkar bi janibihi uyubuhu in kanat mané ci jamono yoyu mabadi mang nit ñi ak sëriñ si di leen yóbbu Saalum nag ci la rombe maami sëriñ bi di way jur way juróom di maam maaram maanaam maam Balla Aysa lay wax maam Balla Aysa mi nga xam ne muy way juru Maam Mor mi way juru sëriñ bi mu ne jamono yi maba di màng nit ñi jëme Saalum romb na ko te jamono boobu maam Balla Aysa toll na ci juróom ñeent fukki at mu bëgg koo boole ci ñi mu yóbbu Saloum boobu mam Balla mi ngi ci dëkkam bi ñuy wax Singi mu ne ab dëkk la boo xam ne mi ngi ci catul salum ci li féete ak waa këram ak ay doomam ñëpp ne foofa ne mam Balla ku màgg la woon ci ay nitam ku ñu respect respect la woon la ku amoon solo la kuñ toppoon la kuñ déggoon ay kàddoom la waaye ba mu sàkkoo ci moom moo ànd ak moom dem Saalum mam Balla Aysa daf ko jox ngànt ndax boobu mage na da ko jox ngànt ngirug mage waaye da ko booleeg doomam Muhammad ibnu Habibillah muy mam muy mam Mor Anta Sali mi way juru sëriñ bi la ko booleel mooy way juru sëriñ bi di sëriñ mit ci wàllu xam-xam ndax moo jàngal sëriñ bi mu ne maa ngi xam xamle nag téere bi fu ma waxee ak Cheikhul Walid sëriñ bari waayjur fu ma ko waxee rek na ngeen xam ne ma Mor Anta Sali laa bëgg a wax kon day wane ne dana ko tudd ci téere bi lu bari mu ne nag fu mu waxee Cheikhul Walid na sëñ Tuba waxoon ca Masalikul Jinaan nga xam ne dafa war a tudd Imaamul Ghazali lu bari di ko cité dem ba ne fu ma nee qaala rek xam leen ni Imaamul Ghazali lay wax sëñ Bachir mu ngi doon la waxee fii ne fu ma nee Cheikhul Walid sëriñ bari waayjur. xam leen ne Maam Mor Anta Sali Maam Mor Anta Sali laa ndax lim ko war a tudd ci téere bi day bari moo tax mu jamono yi nga xam ne nag ñi ngi waaj di dem Saalum sëriñ bi moom ma nga Jolof Jolof la nekkoon ca nijaay way juróom jigéen nga xam ne maamam lay doon nijaayam yooju mooy tafsir Mbàkke Ndumbe al mufassirul kabir nijaayam la waaye bay mamam la maanaa ndax mooy nijaay soxna jaara waaye maamam la itam ndax mok maama doon tasale ay doomi lañ tafsir mbàkke ndumbi moom boobu maga jolof fa la sëriñ bi nekk booba sëñ Bachiru nee na sëñ bi nee na ma baayam da ko fa yóbbu ca nijaay yaayam jooju di mamam, da ko boole woon ak moom at mim feree ci zahir la ko boole ak moom mu dem foofa booba boobu maama doon ma nga ci xuru mbak gi ma waxon sank sànq fa la nekk boobu jógee nañu mbàkke bi nga xam moy fi sëriñ bi gëné aduna ba dem xuru mbàkke nee bañ fa nekkee ba sëriñ bi fer nak la ko bolé tafsir mbàkki ndumbi mu nekk ak mom jolof mu nekk ak mamam joju di bayam bu ndaw batay ni ma la ko waxee waaye di mamam ndax moy càmmiñul mam astawaalo mu jur soxna jara mom tafsir mbàkki ndumbi fa la nekk ca mom ba mata dal jang mom serigne bi tafsir dombi tambalil ko jang jangal ko alquran bam mokal alquran ci loxoy tafsir mbàkkandumbe mom mom, la sëñ Bachir wax mom tafsir mbàkkandumbe mo jangal serigne bi alquran bam mokal gannaaw bi nak la faatu mom tafsir mbàkkandumbe rahmatullahi alayhi mu ne na gu ku bari xam-xam ku am diine bokk na ci li nga xam ne mënees naa rafet njort ci moom muy wàllu ngaat nga te yonent bi daana ngaat nga di ko ngaat nga gu rafet jamono yi muy faatu moom tafsir Mbàkke ndumbi moomu dafa fekk muy bind ab kaamil kaamil boo xam dafa tàmbali ci xaaju kaw bi baqara tàmbali xaaju suuf bi di Maryam wala qala ma aqul lu mu jublu ci loolu mooy day bañ këyit gi xaw a yeexe fan yi di ko yàggal ndax dafa yàkkamti kaamil bi ndax bu bindee xët wi faaw mu xaar ba xët wi fen di mu soog a wëlbati gi ca ne loolu nag la doon bañ moo tax dafa tàmbalee bàqara tàmbali di xaaji kaw bi tàmbali xaaji suuf bi bu bindee aw xët ci xaaji kaw bi teg ko bind aw xët ci xaaji suuf bi balaa boobaa noppi xar wi mu jëkkoon a bind fen di mu wëlbati ko mu ne bañoon na kaamil bi yeex moo tax mu def noonu sunu borom nag ci dogalam ba kaamil ba daataan àgg mu wuy ji boromam nee na waaye ngaan nga gu rafet gi nga xam ne mënees na ko ngaan nga tax ñu mën a rafet njort ci moom ngaan nga googu mooy xaajub kaw ba ma nga yamoon ci fi sunu borom di wax wa amma alladina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha xaalidun nga xam ne ma nga ca suuratu imran suuratu ali imran ca xisib bu ñuy wax xisibu lantanaalu di juróom benneelu xisib ci xaaju kaw bi foofu fala mbindam ci xaaju kaw bi yem mbindam ci xaaju suuf bi yem ci fi sunu borom di wax asxaabul jannati xayrum mustaqarran wa axsanu maqila ñaari ay yëpp di wane jëmm yiy texe ëllëg dugg aljanna am seen xar kanam day wax tàll te ñooy waa aljanna aaya jooju itam mi ngi ci suuratul furqaan ci xisibu wa qaala alladina laa yarjuuna ji di juróom-benneelu xisib moom it ci xaaju suuf bi kon ñaari xaaju bu ci ne amoon na ca juróom isib ba dugg ci juróom-benneelu xisib bi mu ne foofu la faatoo moom tafsir Mbàkke Ndumbe ak aayay texe yooyu nga xam ne ci lay yam bi muy bind mu ne loolu dañ gaan nga lu rafet loo xam ne mënees naa tax ñu rafet njort ci moom li lépp di dellu ci ni sunu borom tanale Serigne Touba askanu bax askanu dine ndax tafsir Mbàkke Ndumbe mi moy càmmeñul Maam mama Waalo mii way juru Soxna jara mi way juru serigne bi kon yal mu yal na yalla deggal ngaat nga loolu te yeram ko yermande ju yaatoo yaatu ta fay ko ci nun aw yiw amin mom tafsir Mbàkke Ndumbe mom gannaaw bi tafsir Mbàkke Ndumbe faatoo sëriñ Basiiru nee na sëriñ bi dafa dem ci nijaayi boppam nag di sëriñ Bousso bi sëriñ Bousso bi mi nga xam mooy nijaay lenqem ndax moo soxna jaara ñoo bokk lépp fala dem nekk ak moom mu ne sëriñ Bousso bi moom itam imaam ju bari xam-xam la woon ko boole woon ak njàmbaar la njàmbaari yaram ak njàmbaari diine jàmbaar la woon moo tax mu melal ko sax bayit woowu ñuy wax jamaa shajaate والخضوع لربه ما أحسب ما أحسن المحراب في المحراب نبولا وانا انجامبار اكو راغال بروموم مون محراب موي كو خامن فوم خاركات اب خاري بوم ديم داق مون كوكو بوم غيسا سي محراب مو تخاو دي جولي دارا دو غنا رافيت لولو خام داي بولا انجامبار اك راغال بروموم بو تخاو سي محراب بايت ماتيكو سك بو دامي سي خاري با mihrabu jëkk bi foofu lañ ko tëggee bu demee ca xare ba mate ko sëkk waaye bu demee ca mihrab ba di jaamu boroomam itam jaamu boroomam itam mate ko sëkk moo tax mu ne ma ahsanal mihraba fil mihrabi noonu loolu mooy melaw sëriñ bu soobee radiyallahu taala anhu mu ne ci loolu lan nekk nag ba maba moom yi ni mu la ko waxee nag mbir yi wëlbatiku ba Lat Joor ami amir Mom, nen ci loolu la nag bari mbir yi wëlbatiku nak ba mabba wote jihaar joju jeme ñepp salum señ bu bi mom ak mamaron tassali ñom ñepp bokku ca ña andon ca jihaar ji dem fekke mabba dem salum. mu tek julit ni lu metti lo xamne nim jito legi ñu bare bare sax meram nañ ko ci mom mabba mu ne bañ agge salum nak dafa sakku ci ñom julit ñi ñu sàkk kenn ko xamne ñom ñepp dañ koy def kilifa di delu ci mom xeti fatawa yi ñi def ak yëpp ñuy man delu ci mom man na ñoom ñëpp ñu ñu noppi mu ne leen tànn naa sëriñ Bousso bi bu ngeen ci juboo man na na koo def kilifa mu nekk imam bi di mufti bi ñun ñëpp ñuy dellu ci moom ndax mbooloom jullit fuñ tase war a am kilifa. nee na ñoom ñëpp nag ñu juboo ci moom ci loolu jël sëriñ Bousso bi teg ci seen kanam doomi soxna ya nekkoon mm, Saalum ca jihaad ja bari nañu waaye ñoom ñëpp sëriñ Bousso bi moo doon seen kilifa ci wàllu diine di seen mufti yi loolu di dellu ci. ni ma la waxoon ni sunu borom wajale serigne bi mune nek nañ fofé ci salum ak Maba ay at ba yalla dogal Lat jor joge kadior ci mm, lu doxoon digganteem ak fal Fall bi jappale ma jojo mu falu Lat jor nak dawe fa ka Kajoor ngir sakku sin dibal ci julit ñi fa nekk mune bañ accé nak ba nga xamee ne nag ñëw na ci Saalum ba mu duggee Maba yebal ay ndaw ñu dogale ko ca yoon wa xamal ko ne ko duñ nangu mukk mu ñëw ànd ak ñoom nekk ci dëkk bi taddu daa tuub ba noppee dugg ci lislaam ndax ca doy booba doonte ci lislaam lañ judd waaye seen lislaam amul solo lool Lat Joor xam ne pexe amut mu dal tuub ñu ànd ak moom dugg ca réew ma Lat Joor nekk ak doomi soxna yi ak sëriñ sa foofee ca Saalum mu ne mujjug Lat Joor it mujj gu baax la ndax sax na ca lislaamam jooju ba nim faatoo ba dogalub yàlla sax mujj na delloo ko kajoor gam bëggoon a yilif sunu borom mujj nag ko delloo mu nekk buurub kajoor mu ne ci mbooloo gi nga xam ne mbooloo mu baree bari booloo woon nañu nekk Saalum giiri jullit yu baree bari yu soree xamante nañ day mel ne kon jihaad jooju amoon na njariñ am na njariñ lu jur mu ne xeet wi jariñu ci am ci ay may yu bari booba itam Cheikhul Walid ni mu la ko waxee sànq Maamor Anta Sali ñëpp xam ko ci rafetug jàngale ak wérug fiq ak ñeme gum ñeme ñeme dëgg ak nekk gum ca nekk bu leer a leer a leer mu ne mujj nag jullit yu baree baree bare ak ñiy sàkku si ay laaj ci seen yi diine ñoom ñëpp ñëw di ko wut si di ko fekk si Lat Joor it daal di aju ci moom di ko ubbikoo ci mbiri diineem lu bari ma ko cay laaj ma Mor Anta Sali ko ca tontu ba mujj sax gorom la ak moom ci doomi baayam mujj na denc doomi bàyyi Lat Joor bu ko defee buumu kóllëre geeg xaritoo ga doxoon seen diggante nag gën a dëgër ma lii lépp nag Maba mi ngi ci kàttanam googu yilif salum di man ne ko nekk buurub jullit ba dogal ba nag yóbbu ko ci mu songu siin foofa nag mel na na fa la dogal ba agse siin nekk réew mu tuutee tuuti moo xam ne ñu bari dañ koy xeeb tax la waroon ci waajal xare ba mu waroon a waajal ba ngir songu siin defu ngir siin booba bu réew mu ndaw la te tàmm na euh, gañe xare yim daa xare ceddu yi yëpp loolu tax na mu jàpp ne xëy na siin du doon lu koy lëjal lool mën na ko nangu ci bu gaaw moo tax la ko waroon lépp ci kàttan gu bari waaye lam fa yóbbu sax la muy néew néew daanaka siin xawu ko attan waaye nag ci ñàkk a ak ñàkk waajal xare ba nam wari dëgg ànd ak waa nga xam ne moom dañoo tëx lu nga xam ne fañ nekk mooy mën nañoo dee ba jax tàkk seen dëkk bi jaral leen loolu waaye kenn du deltu gannaaw ci la songe siin nag dogal ba fala agsee ñu sànni ko ay jam-jam ca kaw fas wa moom maba jaxu mu daanu bam daanoo kanam gi jubluwul xibla waaye xare ba la jublu kako ko bëggoon a wëlbati ne na ba nga bëgg a wëlbati jëmale ko xibla mu junj ko ne ko bàyyi ko ndax bañ bu wëlbati ko jublu fu fokk fu bokkut ak xale xare ba muy noru daw te daw ci jiheet ci diine bàkkaar bu rëy rëy la loolu lépp bu di dellu ci kon njàmbaar ak mbaba jaxu ak dëggu gu mu dëggu ci gëm diine ba ci mujjug noo xam googu mu ko ci feeñal rahmatullahi alayhi ci loolu nag kon la Maba Jaxu faatoo ca siin ay donoom dellu Saalum yilif dëkk ba yam ca Saalum futuxaat ya mu defoon ca Saalum ñu téye ko nag yor ko ña nga xam ne ñëpp nag Maba leen taxawoon a dem Saalum ñoom ñu ci bari nag walbatiku ñibbi dellu fañ jóge woon ca la Lat Joor delloo Kajoor fekk maa jooju am na lu dox digganteem ak tubaab yi bañ folli ko ba yàlla dogal Lat Joor ba mu duggee Kajoor nag lañ ko fal mu nekk buurub kajoor ba xew-xew yi ay wuute am digganteem ak tubaab yi moom it tubaab yi daaj koy foll ñoom itam daal di méngoo réew mi nag coloniser ko bu biir mu mubasharatan kenn falatuñ kenn muy nekk buur ña fi doonoon ay doomi buur ak ña daa falu ñu def leen ay chef de canton nga xam ne fa ñu nekk léegi tubaab bi lañ fay nekkeel waaye kenn ameetul sa àtte bopp tubaab yi ci lañ coloniser réew mi nag coloniser bu wér a wér a wér. nee ci. dellu Lat Joor googu nag ba muy dellu Kajoor ci la sàkku ci Maam Mor Anta mu ànd ak moom dem Kajoor nekk mursidam bu koy dimbali ci wàllu diineem bu ko defee nag ci la méngoo atte ndax amul woon ci nit ñi kenn koo xam ne dana wéeru ci moom ku moom ba Maam Mor Anta gisee ne Lat Joor lii mu sàkk ci moom ci ay laabire mu xam ne ci warteef yi laabire la bokk bokk na ci diine mu yaakaar ci yoolub yàlla ca la ko nangule loolu Lat Joor sàkk ci moom mu nekk ak moom nekk xaadim di ko àtteel ci mbiri diine di ko ci laabire ma Mor Anta Sali xam ne loolu laabire gu warteef yi diine la ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne addiinu nasiha mu nangul ko loolu ngir yaakaar ci yoolub yàlla ak yoolub yàlla ak la yonente bi wax ne la ay yahdiya allahu bika rajulan wahidan xayru laka min xumari naxam yàlla gindee ci yow kenn rek moo gën ci yow àdduna ak la ci biiram loolu moo tax mu nangul Lat Joor loolu mu ko ci moom nekk ak moom di ko àtteel ci mbiri diineem ànd ak moom dem Kajoor Lat Joor dogal ko suuf ci wetu kokki mu suuf suñu wax pataar maanaam tasali dëkk fa ak njabootam ca wetu Lat ndax da daawul nangoo dëkk ak Lat ci benn dëkkam da koy dànd ndax daara la yor te daara àndut ak nguur loolu moo tax mu daa ko sori bu Lat Joor dëkkee fii mu dëkk fii moo tax mu ca wetam mu wutal ko fa dëkk mu tëddee ko Pataar gannaaw bi la jóge foofa dem Mbàkke Kajoor mu jox ko bis boo xam ne foo jotee ma Mor Anta Sali ñëw fekk si Lat Joor di ko atteel wax nañ ne talaata la ko daa def bu sëñ bés yi nu andiwul talaata ji waaye gannaaw bi am nañu wax loolu bu bis ba jàllee mu dellu ci daaraam ba bis ba delseeti mu ñëw di laabira Lat Joor ci mbiri diineem lépp lu Lat Joor yëkkati ci mbiri diine te xamu ci àtte ba it mu laaj ko Maam Mor Anta Sali Maam Mor Anta ko ko ci loolu la nekk nag di jàngal ay taalibeem di yor daaraam itam di ubbee mu ne lii lépp nag sunu sëriñ sëriñ Tuubaa mi ci wetam nekk ci biir daaraam yii mu la nattali yépp nag ma bajaxoog Lat Joor ak digganteem ak waa Kajoor ak tubaab yeeg niñ colonisé réew mi mu ne yooyu yëpp taqallubaat yi xew-xew yii di xew ku ne xam na ne dana am lu mu bàyyi ci xelam ku mel ne sëriñ bi ko bàyyi ci xelam loo xam ne dana ko yóbbi expérience ci wàllu àddunaam mu ne ndax boroomu xel dara du ko romb lu dul dana ca xalaat rawatina ku mel ni sëriñ bi nga xam ne ni mu la waxee woon am xelam ci gannaaw ak ñawam xew-xew yi xam dana am lu mu ko dimbalee ci masuliya bu rëy bi nga xam ne boroomam teg na ko ko mu ne ci jamono yooyu nag noonu lañ nekkee ba ni la ko waxee sànq tubaab bi ñëw si réew mi ba xeeti nguur yépp nag dañ fi mu ne ci loolu la Maam Anta Sali moom wéy ci daaram jooju balaat jor faatoo itam mu wéy ci daaraam ba wéy ci daaraam jooju ba wuy ji boromam mu sax fi la bàyyi Lat ndax Lat Joor Maam Anta Sali fi la ko bàyyi mu ne ci li nak yi nga xamne xew-xew yi baye nako ci xelum serigne bi ak diine ji nga xamne da ko namp muy ragal yalla ak jaamu yalla di diine ji nga xam da ko nampé ci way juram mam mam jaara ak tawféexi sunu borom ji nga xamne dimbali nako ci lol nak la na ci ba mujju siiw ñepp di ko jàng alxuraan ko mokkal lool jàng xam-xam ba fànn yëpp mu géeju ca ba tàmbalee taalif ay téere xam-xam ci nekk gu way juróom Maam Mor am na ci téere yoo xam ne sax Maam Mor Anta jàngaleel na ko boppam ci daaram Sëñ Tuubaa ko taalif mu ne loolu nag loo am solo la ci ci ci mbir moomu mu ne sëñ ne wéyut nag ci loolu ay mu ne ci loolu la la wéy ay at yu neew neew neew ci jangale mom ak ci jangam goku ba jeexal fànni xam-xam yep ni ma la ko wax léegi ba tàmbalee taalif mu ne nag nekk ak waajuram Mamor Anta Sali Mamor Anta Sali muy jangale ci bir dara ji mune ne mu nek ci bir dara yi Mamor Anta Sali nak musta yengal dara ci warteef fi top wajuram lepp ci la nak donte lii Maamar Anta Sali nekk ci di àtteel Lat Joor sax taxutoon mu jubu sëriñ bi noonu waaye lépp rek ginnaaw sunu borom moom dafa santaane allaa ta'budu illaa iyyaahu wa bil waalidayni ihsaanan mu ne loolu sunu borom santaane nag ci jaxasoog sa jur maanaam ihsaan njekk ak lépp lu rafet nga jëflante woog sa wayjur loolu moo tax mu ne musta jéem a yëngal dara ba tax na boo seetee sëriñ bi liggéeyam bépp sax ميجي تامبلي عام اثاش غنا مو مرام رسالي بن دم بوجي خول من عام اثاش لاي واخ لو ملني قبلت من اثاش احيت مولد النبي من اثاش كون غنا مو مرام رسالي دال تامبلي بولم لو مي تامبلي مو مرام رسالي يتام نك باي وان كو خيل لول ndax lim gis ci mom sop ko lol rafet ci mom ñeenteel ñett ña ñett ña nga xam ne dañoo rafetoon ci ñoom njort ba ñëpp gis ne seen njort loolu mujj na di dëgg te mooy njortul yu njortul asiisu misra ba mu ne soxnaam sa akrimi wa asaa an yanfaanaa aw nattaxidahu walada ak mu firawna ba mu waxee soxnaam ak soxna firawna asiya ba mu waxee firawna moom it qurratu aynin li lii walaka la taqtuluhu asaa an yanfaanaa aw nattaxidahu walada ak Aboubacar ba mu wuutalee Omar mu nekk xilaafa mu ne wuutal naa leen koo xam ne bu fekkente ne jub na maandu na taxaw na ci warte fi diineem loolu mooy li ma jort mu ne ñetti njort yooyu nga xam ne ñëpp dem nañ ba xam ne lañ doon jortu wér na mu ne sëñ Tuubaa moo doon ñeenteel ci njort lii ma Mor Anta Sali ci moom ku ne xam na ne njort lu rafet lu mu amoon ci moom rek lu ko kawe am na ci mbirum sëñ Tuubaa mu ne sëñ bi dañut ci yoonam woow yi ànd ak way juram woow yi mujj way juram sax jébbal ko li ëpp ci wàllu jàng mi lépp li ëpp ci jàngale mi sëñ Tuubaa féetewoo ko di jàngale li ëpp ci téere yi nga xam ne téere ñu sukkandikoo la it mu jébbal ko sëriñ bi li ëpp ci laaj yi fii daa ñëw itam seeni tontu lépp mu jébbal ko sëriñ bi mu féete la woo njàng mu féete woo njàngale mi féete woo tontu laaj yi daal di noppal ma moon rasali ci lu bare bare bari mu ne ci jamono yi nag jamono yi mu nekk ci daara ji di jàngale ak a taalif ak mi ngi bind ay ay ay téere di bind ay tawastulaat ay ñaan di bind ay dénkaane li sunu borom def ci moom nag ci xeeti kéemaan tàmbalee feeñ ci moom ne ni sawara nëbbu ci duju béy nga xam ne sawara dafay nekk te boo kocca koccalee sawara wa tak. te bu ca boo ko deful kenn du xam ne sawara nga ca mu ne noonu la mbirum sunu borom nëbboo woon ci ci sëñ Tuubaa jamono waay juróom boobu waaye ñu bari tàmbali nag bàyyi xel xol yu bari tàmbali sopp bakkan yu bari tàmbalee wommatu jëm ci moom dong yu bari tàmbalee demal demal dem ca moom ngir mu jàngal leen ci seen bopp gannaaw waxat ma Maam Mor Anta Sali moo leen daa yabal ci moom léegi ñu bari ñi ngi sax di dem ci moom te kenn yabalu leen ci moom. buur yi àdduna kilifa yu bari tambal ko bëgg a xam ndax ñi ngi koy dégg di sàkku ci moom la nga xam ne moo nekk ci waajuram mu ne waaye du nangoo wax ak benn buurub àdduna du nangoo fekk benn buurub àdduna du nangoo joxas ak moom. lu dul bu ma Mor Anta Sali moo ko ko digal ne ko demal wax ak kee mbaa demal demal ca kee mu soog koo def ngir jëfe ndigalul waajuram da ciy ànd ak nag xëccoog xolam ndax du ko neex waaye ginnaaw sunu borom dafa digle dafa digle ixsaan boobu ma la waxoon ci suñu digganteeg suñuy waajur mu ne loolu moo tax mu muy bësanteek xolom ba jaxasoog buur yooyu di wax ak ñoom bu ko ko bàyyi kem ne ko ko bàyyim digale loolu nag lu jafe woon la ci jamonoom ndax jamonoom mel na jamono yii rek nit ñi nga xam ne ñëpp daanaka mm, seen yitte ñu ngi koy def ci yittey àdduna kenn ku ne bëgg bëgg àdduna bëgg mm, say mbiri àdduna lijjanti ko Sëñ moom ci jamonoom te daa amagul fanweeri at boobu wala soriwu ko tàmbalee daw àdduna ak buur yi àdduna yi nga xam ne àdduna jëpp ak ngi ci seen loxo moo tax ñenn ci ñoom sax daa ko jiñ defe na daa wérut yaram wi daa naqari ba tax mu tefu taalifun ca xaalu safihun jooju mu waxoon am ñoo xam ne dañ ne kii dama defee ne nañ ko bàyyi rek ba ci kanam àdduna du ko jàppagut ñoo xam ne leen daa wax ne waaye bu gàtt rek kàttanu mat ba mu amee ci sunu borom def ci moom tàmbalee feeñ ci moom ñu xam ne kii dafa am lu boromam def ci moom loo xam ne defu ko ci kenn màndargay wilaya tàmbalee feeñ ci moom ñu ko bàyyi xel ragal ko ragal koo xam ne sax moom lañu gën a ragal sax ci waajuram ak ci mboole mboroom xam-xam yi jamonoom boo ànd ak ay atam yu néew waaye bàyyi nañ xel sëñ Tuubaa waggar ko waggar koo xam ne waggare wuñ ko sax maam waroon tasali ak li muy doon doon ko ne loolu itam sëñ Basiru nett la cel noonu ñu ko waggare woon ñoom buuri àdduna yi nga xam ne maam waroon tasali sax defuñ ko woon noona mu ne buur bu ñuy wax sàmbalaw bi natt li na ma moom sëriñ bi sax moo ko ko nettali la wax ne sëriñ bi nettali na ma ne bu sàmbalaw be mi nga xam ne moo mujj ci buuri kajoor yi am na bis boo xam ne ñëw na ci Mamor Anta ba mu ñëwee ci biir néeg Mamor Anta Sali mu toog ak moom ci kaw lal bi Mamor Anta woo sëriñ bi mu ñëw ba mu ñëwee Mamor Anta ne ko sàmbalaw bi mii dafa bëgg nga ànd ak moom dem këram doon qadim di ko atteel ni ma ko nekke nijaayam Lat Joor Lat Joor nijaay sambalaw bi la ma ko baax na gin mu di génn ndànk dem ndax ni ma na waxee woon teggin yim amone amoon digganteem ak bayam taxna dede du ko wax waye mo dana ko baxna na genn mu ma delu sama nek mom serigne bi ca keur ga ne ci sama jangale ndax boobu day jangale ci bir dara ji ni ma la ko waxe legi ba buur bobu genné sambalaw bi rombuma fekk maa ngi ci keppaarub néeg bi di jàpp toog ci benn der di jàpp nee na ba mu ñëwee agsi taxaw timma ma wàcc der bi sànni ko ne ko toogal waaye nee na nanguwu ca toog ci der bi der bi ma ko lal di sama der nanguwu caa toog ñemewu caa toog sëñ Basiir sëñ xoolal lu yéeme lii mën a toog ak way juram ca kaw lal ba te ñemewut a toogal toog ci derub sëñ Tuubaa bi ma ko sànni ne ko toog fi na loolu mooy lim la waxoon sànq ne la demoon nañ ba waggare ko noo xam ne sax waggare wuñ ko way juróom mu ne naka noonu nee na noonu nag sàmbalaw bi daal di baamu lam sa ko woon ne ko li la sabaay waxoon ci biir rek laa lay fàttali dama bëgg ñu dem nga nekk sama cheikh di ma di ma di ma diisug moom ci wàllu diine di ma atteel leen sëñ bi nee na ma ne ko mënumaa dem bàyyi donga yi nga xam dañ fay ñëw di sàkku di koo xam seen mbiri diine mënumaa dem di leen fi bàyyi loolu xalaatuma ko nee na buur ba daal di ànd ak moom ca loola waaye yëkkati benn naaru góor wu rafet jox ko ko àddee jox ko sëriñ bi nee na ma nangu àddee ja ngir maslaa ak moom waaye ba mu demee fekk na am na ñetti jullit ñoo kenn ku ne ci ñoom ci bor koy di di ko fayu bor bor bu mu leen amee moom sàmbaloo bi te fayu leen ko ñetti jullit yoo xam ne kenn ku ne ameel na la téeméer mu war a doon ñetti téeméer te fayu leen nee na ma digle ñu jaayal ma fas wi mu ma jox ne ñu jaayal ko fas wi ci ñetti téeméer mu jël ñetti téeméer yooyu séddale ko ñett ñooñu fayal sàmbalaw be borom boobu nee na ñoom ñëpp ñu sant sëñ ba Bachirou teg ne sëñ bi ba may nettali def ne ma ba fii may waxee yow sàmbalaw bi yéegul loolu yéegul ne jamaa jaay fas wa fayal ko borom yooyu kon loolu it di dellu ci sàmmoom nga xam ne noonu mu bañoon di buur buuri àdduna yi noonu la bañe woon di jëfandikoo lenn lu jóge ci ñoom kon defe naa ne euh, xatuk waxtu wi ñu mën a yemani foofu rek ba dellu si waat ak jàmm ci beneen xaaj bi incha allahu taala wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu waaleykum salaam wa rahmatullahi taala mbokk yi jëf ci déglu bi nu doon déglu ñu nekkoon tey àndoon ak Serigne Abo Mbacke moom Serigne Bass Mor moom soxna Faty Dia moom Cheikh Mamadou Basir ñu gën koo xam soxna jabara moom lañ àndal ci Minanul Baaxil Xadim ñu nekkoon tey ci ñeenteelu xaaj bi ñi ngi leen di diggaat beneen xaaj bi muy xaaju juróomeel bi yàlla na ko yàlla fayal moom Serigne Abo mi te fayal nu Cheikh Mamadou Basir mi nga xam ne moo liggéey liggéey bu mag bi jëmale ko ci sunu sang bu tedd bi wasalaamaaleykum wa rahmatullah wasalaamaaleykum wa rahmatullah wasalaamaaleykum wa rahmatullah